rey nit ki ba pare dem dajale waa këñ ba di jooy ci dëj bi di esetu ay whatsapp di naqarlu di toroxlu di jooy di yuuxu ànd ak yaayam mu daanu mu daanu mu xalangoo mu bëri yaay ji gën koo yuuxu mel ni kuy daanu yësi fekk moo rey néew bi dara safatun ci àdduna enquête bu woon rek teg ko ci yoon taqaluma kenn nag bu kenn dem ne aadama nee na bu lay ko rey nday yiri ma ko rey boogaa ko rey déedéet dama ne nan leen déglu ñoom ñëpp képp ko taq ci Aziz nan la déglu waaw ba ci fareeram yooyu sax nañ leen déglu yow réew nit di wax naan nan dajji buntu beeg ah de dégg ngeen fareelu Aziz bi li mu wax nee na Nabou Leye moo ne ma sax xoolal salle de bain bi ñu dem xool fekk fa fekk fa kii fekk fa fekk fa kii dégg ngeen ko yéen ñëpp nee na Nabou lay moo ne ma ubbil salle de bi nga xool ko ma ubbi salle de bain gis fa ñu dugal fa euh, kii nekk fa euh, Wally nekk fa de déglu ngeen interview yéen ñëpp déglu ngeen ko bu eh bu leen ma dugal de bu leen ne déggu leen li interview ba mag ji def